mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak assan Sylla mi nga xam ne moom mooy président MPS euh, jëf ak njariñ président maa ngi nuyu. maa ngi lay nuyu Ahmed di nuyu mbokku téléspectateurs yi yëpp yu seen jotaay ak yu seen TV. Mm-hmm. di kontaan bu baax ci dalal ji nga xamante ne bi dalal nga ñu fii tey. Mm-hmm. fi ñuy dooree laaj yi nag mooy président de la république gis nañu lu yàggul dara mu defaat nag euh, euh, sorti defaat déclaration wax ak askan wi discours à la boo ko doon résumé tey nan nga gisee sortie mu mujj bi. waaw jërëjëf euh, balaa loolu sax damay bëgg nga may ma ma jaale euh, askanu senegal mhm. euh, kilifa diine yi nga xamante ne bi jóge nañ fi fan yi mhm. di sëriñ Pape Malick Sy. Mhm. di aussi xalif généralu Thiénaba ak ki nga xamante ne bi moo di njaboot ci Baye Niass ak sëriñ Aziz Fall mi nga xam ne moo fi jóge démb di doomi sëriñ Modou Moustapha Fall di rakk sëriñ di Khady Fall te man ma dëkk kër Cheikh Ibra Fall ba tax na ñu ngi leen koy jaale ñoom kilifa yooyu yëpp ak tarixa bu mënti bokk ak yoon bu mënti bokk di ko jaale waa Sénégal yëpp pour revenir ci sa question seetaan nañu discours président de la république bi nga xamante ne bi annoncé na ci ne dafay lever euh, état d'urgence bi ak couvre bi euh, ñu gis ci nag ay jàngat yoo xam ne mën nañu ne euh, jafe-jafe bi ba fii ñuy wax ak yow au lieu mu arrêté dafa gën a yokk parce que d'après chiffres yi nga xamante ne bi moom lañ ñu jox mooy 79 cas moo amoon bi nga xamante ne bi mi ngi koy déclaré bi nga xam ne mi ngi koy levé 6600 cas kon loolu indi na jiixi jaaxa ci askan bi boo xamante ne bi ñun jàpp nañu ne euh, gestion bi am na ay défaillance yu baree bari yu waral euh, ñu mën a yegg si ba niveau bi liñ ci mën a wax nag aussi déggu nañ mu wax ci plan de relance ginnaaw bu ñu lever euh, état d'urgence bi am na plan boo xamante ne bi ñu ngi koy ñu ngi koy préparer. Mm-hmm. ngir jàppale euh, askan bi mais aussi ngir teg ay yoon yoo xamante ne bi difficulté yi nga xam ne moom moo nekk ci suñu kanam dinañ ko mën a dinañ ko mën a saafara ndax ku ci nekk xam na ni euh, wax na ne taux de croissance bi dafa nekk dafa nar a jëm à 1 pour cent voire moins. loolu jafe-jafe bu méttee métti la moom lay annoncé ci fan yi di ñëw ci kanam euh, gestion Covid bi nag globalement man su ma ko doon analyser damay wax ne mbett da certes mbetteel am na mbetteel am na parce que réew yépp yi nga xamante ne bii ñoom la mbas mi dal ci ñoom euh, bett na leen am nañ ay jafe-jafe pour gérer ko mais ñun tamit dafa am ay failles yoo xam ne am na ci sunu gestion yu waral. bu ñu ko teeloon prévenir du ñu yegg si niveau bi bokk na ci premier cas bi bi mu feeñee ci 2 mars di ab euh, doomu bitim réew ñu teg ci ñeenti fan juróomi fan benn cas feeñ ci sénégalais bu demoon Italie ba dellu si ñu tegaat ci fukki fan ak juróom yoo xamante ne bi avion yi ñu ngi wàcc di indi ay doomi bitim réew yoo xamante ne bi dañuy indaale cas kaa importe loolu nag diggante 2 mars ba 23 bi muy déclaré état d'urgence bi am na ñaar fukki fan ak benn yoo xam ne dañoo tardé nit ñooñu nga xam ne doomu jàngoro bi dugg na ci ci seen yaram tasaaroo nañ ci dëkk bi daje nañoo ñeneen te mënuñu contrôler nit ñooñu ñaata la loolu jafe-jafe la woon ci ginnaaw état d'urgence bi mu dugg see tamit gis nañ ci jafe-jafe boo xam ne policiers yi pédagogie lañu waroon a demee ak askan wi foofu tamit jàpp naa ne dañ fa xaw a am tuuti euh, jafe-jafe parce que dóor bi dafa mujj dem ba def xal def def ko ak xale yi fow fowukaay xale yi di dàqanteeg policiers yi muy am mbiccoo mbàlloo alors que. mythe bi dafa dañ quoi. waaw alors que dafa waroon am pédagogie ak yar monsieur ah lii kat xam nga ne dañ ko tere yaa ngi dox. tere nañ la heure bii bu ñu la fekkaate fii kat nangam boole ci sensibilisation ak prévention yee nit ñi ba nit ñi maîtriser. li nga xam ne mooy jafe-jafe bi li ci des mooy gestion bi sur le plan sanitaire dañuy sant infirmier yi ak euh, service sanitaire yépp ci risque bi ñu risqué seen vie ci sauver askan bi ci sauver ñi nga xam ne amee nañ doomu jàngoro. mais benn instant est-ce que gouvernement bi tamit euh, demeewuñ daal bàyyi seen nopp ba mu ba mu ëpp maanaam pression parce que seetlu nañ waa ji ni muy ni mu doon bàyyee bàyyeekoo population bi dafa mel ni bu ñu tegee pression waa ji dellu ginnaaw. dellu ginnaaw dellu ginnaaw waaw man jàpp ak ak toppandoo bi ñu doon mu mel ni dañu xawoon toppandoo bitim réew tuuti bu France defee nii wala bitim réew def nii rek ñun ñu def noonu bu ñu bàyyee ñu bàyyi bu ñu nee nañ ubbi ñu ubbi bu ñu nee nañ tëj ñu tëj bi si des aussi am na pression am na pression parce que sénégalais yi tamit nga tëj leen te ñi nga xam ne ñoo ëpp ci réew mi nekk ci secteur informel war a liggéey yi ñi doon ay ambulant kat ay jaay ay menuisier mécanicien nga tëj leen ñooñu bu yàggee tëj bi bu yàggee te amuñu dara loo xamante ne bi amaat nañ ko en retour pour dundee ko rek loolu mën na indi jafe-jafe te loolu moo indi woon. mais ndimbal bi ñu doon waxoon fan wala ni ñu ko séddalee moo baaxul. ndimbal bi wala ni ñu moo ndaw. waaw ndimbal bi benn dafa tuuti. ñaareel ba bourse familiale yi nga xamante ne bi ñi ko amoon ñoom lañ ko jox foofu la erreur bi nekk. Ah parce que ñi nga xam ne yaa ngi leen di dimbalee juróomi junni. ba pare ñëwaat joxaat leen ceeb te am na ñeneen ñoo xam ne amuñu woon bourse familiale mais ñooñu dolli nañ leen ci wax dolli nañ ci mais dafa tuur boo xoolee woon ci euh, registre national bi kese boo xoolee si cinq cent cinquante cinq mille waaw ci lañ bokk mais yemuñ ci dañoo yokk laa wax yokk nañ ci quatre cent et quelques mille mais ndimbal boobu ñetti weer si ñaari saakoy ceeb ñun ceeb la ñuy dundee Ahmed ceeb la ñuy dundee Sénégal la plupart donc ñaari saakoy ceeb kër goo ci dugg am na dix personnes wala douze personnes ñaari saakoy ceeb benn weer lañ koy lekk ba tax na ndimbal bi dafa tuuti ci ñetti weer yi yéex naa yegg ci askan bi bari na ay difficultés yoo xam ne man j'aurais bien aimé sax ñu jël benn opérateur mu def transfert d'argent transfert famille bu ci nekk xaalisam man moo ma gën a loon sax coow yi nga xam ne moo am ci ceeb ah, beeg diw geeg njëkkante beeg ak jaay nañ ko dëkk sàngam ak daanaka vraiment daf ñoo tardeel bu ñu jëloon modèle Côte d'Ivoire rek dina yomb si ñun cent mille francs mais nee ñaata ñaata famille waaw ak famille ñoom mami famille yi ñu def est-ce que ñoom. mat xam nga un million de famille ci ñun. un million de famille ci ñun mooy presque dix millions de personnes ndax famille bu ne boo ko évaluer dix dix personnes mais famille bu ci nekk bu ñu la évaluer woon bu ñu la joxoon soixante dix mille francs mais soixante dix mille francs yooyu mën nga si jënd li ngay jënd actuellement nii dégg naa ndimbal yi ñu commencé di joxe am na ci ñoo xamante ne bi ñu ngi koy jaayaat pour def ko xaalis. ñaari caaku ceeb yi ñu leen ñoo xam ne ñu di ko jaay pour def ko xaalis. kon pour yombaloon mbir yi bu yàgg la ñu waroon a transférer nit ñi soixante-dix mille rek. génn yow pour yow dañoo échoué parce que li nga fi jot a expliqué yëpp commencé ko ci policier ba ca wàcc ba ci ba ci lekk gi yëpp yow pour yow système bi ñu jël baaxul. waa man daal jàpp naa ne gestion bi ni ñu ko jëlee. wax dëgg yàlla euh, échec la. man ci sama gis-gis. am na ci ñoo xam ne nag gisee nañ ko neneen mais man ni ma gisee mbir mi euh, gestion bi nga xam ne moom lañ géré Covid 19 bi fii dafa bari ay yoo xam ne dafa échec ndax dañoo tardé. toujours dañ doon rattrapé wu te nguur danga nga war a anticiper wala nga prévoir mais à chaque fois danga doon gis mbir day xew ba pare ñu toppaat ci door a saafara mbir boobu. d'accord loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu la jal bon dinañ gërëm nag mhm. coono biñ ci daj parce que mënuñoo wax ne lépp baaxul. mais dinañu dinañu dinañu gërëm ñi nga xam ne intervenir nañ ci. Mhm. gërëm ci aussi ñi nga xam ne doomu Sénégal yi nga xam ne apporté nañ ci aussi seen seen seen dërëm ñii seen 200000 ñii seen milliards ñii seen 5000. ngir dimbale askan wi élan de solidarité boobu tamit lu positif la ci mbir mi. lu positif la ci président de la république nga jàpp ne daal maanaam fii ak ñetti weer fii ak juróom-benn weer dañoo war a liggéey vacances gouvernementales sax dañ ko kii ci bu ñu sukkandikoo ci conseil des ministres bi passé xalaat nga ni li nu perte daal war nañ koo mën a dabu ci daar daar côté économie laay wax. waaw mënuñu koo dabu ci daar daar mais dana wàññi jafe yi. Hmm. man damay rafetlu sax ministère yi duñ dem vacances parce que réew mi dafa nekk ci jafe réew moom bu nekk ci jafejafe benn ministre warul dem vacances président wul dem vacances kenn warul dem vacances parce que croissance su pour cent moom wala moyen moom war naa tiital ku nekk war naa jaaxal ku nekk ba tax na jàpp naa ne ñàkk gi ñu ñàkk dem vacances farata la parce que il faut ñu génne plan de relance bu muy wax pour wax non seulement ñu relever suñu plateau médical. Mm-hmm. ngir suñu hôpitaux yi ak centre de santé yi ñu dimbale leen ba ñu équiper leen ba ñu amaat vraiment ay jumtuwaay yu xarañ. Mhm. mais aussi euh, sur le plan euh, bi nga xamante ni mooy du secteur informel nga xam ne cinq millions lañ te cinq millions secteur informel yooyu war nañ leen a dimbale à travers des projets des microcrédits. kon mënuñu ko dab daar daar daar pour mu gaaw mënuñu koo daar daar dana jafe trop. sur le plan économique léegi ci wàllu ci wàllu mbay mi. nee nañu daaw génnee nañu quarante milliards ren soixante milliards. Uh-huh. yow def nga bitim réew gis nga mbay ni muy demee foofu. Uh-huh. ci réewu nasaraan yi ak fii nii. Uh-huh. est-ce que xalaat nga ni cent vingt milliards double bi sax mënal na suñu baykat yi nga xam ne il représente soixante pour cent de la population. waaw cent vingt milliards sax dafa tuuti. man moom mbay damaa jàpp ne euh, mooy secteur bi nga xam ne moo war a développer am réew. ndax réew moo mënti dem ci àddina bi ci bitim réew foo mënti dem. agro business agro industrie moo leen développé euh, jumtuwaay yi ñu doon utiliser bu njëkk pour développer mbay jumtuwaay yooyu doxatul léegi baaxatul léegi mënatul a ab dëkk ku ci nekk xam na ne fas walla mbaam bu yor benn benn affaire rek ñuy dox ni un hectare walla deux hectares rek lay bay. mais réew bu ñu ko bëggee développer léegi sur le plan de l' il faut ñu am ay tracteurs ay gradeurs ay machines yoo xamante ne bi en deux heures de temps mën nañ la defaral léegi lii léegi vingt ectare wala trente hectares loolu il faut que ñu ñu ñu jëm ci loolu am na ci loo xam ne nguur gi weesoo am na lu mu ci tàmbali woon loo xamante ne bi man damaa d'accordoon ci loolu mooy Goana plan REVA bi ñu koy lancé damaa d'accordoon ci Euh, ni ñu tooge woon jël mbay mi def ko rek affaire dëkk wala gox ak gox man sama village la ñii ñooy bay ñii rek ñoo war a bay ñu jël ay doomu Sénégal yoo xamante ne bii am nañ kattan am nañ moyen ñu jox leen ay suuf ñu bay ci hectares yu yaatu ngir créer riches parce que pour ñu egg autosuffisant ci réew mi di di bay lu ñuy dundee ba dootuñu ko jëgaani il faut que sunu suuf si nga xam ne am nañ ko ci Sénégal ñu defar ko yaatal ko jox ko doomi Sénégal yi nga xam ne am nañ moyen wala pare nañ pour liggéey suuf si ñu jox leen ko ñu liggéey ko ngir réew mi mën ci jariñoo mais loolu nan la nan la nguur gi war a doxalee parce que gis nañ fi ay exemple mën nañ leen a tudd gis nañ coow li am Sindia gis nañ coow li am Ndengeleer maanaam ñoo xam ne dañuy ñëw ci wàllum suuf ñu war leen ko jox waa dëkk bi taxaw waa dëkk bi tam mun nañu ba ñu am moyen yi ñooñu am ñoom it taxaw affaire bi foofu lan la état a def waaw foofu euh, brèche bi ma ci duggee mooy euh, dama jàpp ne d'abord parce que xaw naa ci dugg gëstu ci tuuti te daf ñu intéressé parce que ñun suñu parti dafay défendre doomu Sénégal yi nga xamante ni bii dañuy créer richesse ci réew mi ñun dañoo gëm loolu dëkk yooyu nag ku ci nekk xam na suñu maam yi ni daan dundee bu njëkk mooy bay dundee denc lenn li jaay lenn li di dund li ci des ñuy sàmm ñenn ñi ñenn ñi di napp village boo mënti gis ci Sénégal comme bu njëkk na mu nañ daan dundee bu njëkk mooy àll boo ñëw gor ko rek yàgg say maam yéen ko moom loolu moom moo amoon. Euh, ñuy dox di dox ba 1964 ci la loi sur le la loi sur le domaine national ñëw la loi sur le domaine national moom mooy wax ne buur état moo moom suuf sépp léegi. doon nañ ubbil palanteer nag communauté rurale yeeg conseil rural yi ñuy attribuer ay suuf. mais ci depuis 1964 ci yoon état moom moom suuf si euh, dëkk bii nga xam ne moom nga évoqué léegi nag muy muy Ndingler ak Djilakh euh, am na gëstu yu ma ci def xam ne euh, producteur booba ngay wax di promoteur booba ngay wax di Babacar Ngom commune Sindia ñoom ñoo ko joxoon suuf suuf si tolloog cent hectares suuf soosu ñu ko jox nag. bañ ko koy jox suuf su suuf la woon su vierge foo xam ne ay garab rek a fa nekkoon ñu ñëw défricher ko dagg ko defa mu ñëw défricher ko dagg ko defar ko. kenn daawu fa bay délimité ko kenn daawu fa bay. bi loolu amee nag bi mu ko défricher ba pare te waa Ndengleer nga xam ne ñu ngi à 6 kilomètres de Djilakh d'après man photo satellite bi ak information yi ma am Ndengleer ak Djilakh ñu ngi 6 kilomètres te maire Sindia déglu naa ko mu wax ne ci périmètre communal am ci la. lii nga xam ne moom moo di 300 hectares yi nekk te je pense que maire bu koy wax il est bien placé parce que il travaille avec les services de l'État mooy cadastre ak urbanisme ñooñu ñoo war a délimiter périmètre communal donc je pense que maire bi su waxee ne lii fii la nekk damay jàpp ne loolu foofu la nekk ma yor photo boo xam ne woon na ma ni Ndingler mi ngi à 6 kilomètres de Djilakh à 6 kilomètres de fi nga xam ne foofu la travaux yi nekk ak activités yi xam ne moom la monsieur Ngom di def léegi nag suuf soosu nag waa Ndingler dañ doon jógee Ndingler di ñëw di bay si ci suuf soosu. mais nekkul ci commune nekkul ci seen commune ñoom dañ fa daan jóge seen commune di ñëw di bay si foofu xam naa ne bay si boobu ñu fa doon bay si nag ak yàgg bu ñu fa yàgg moo tax ñu jàpp ne ñoom ñoom ñoo bi ñu joxee monsieur Ngom. li nga xam ne moom moo di euh, suuf si attribué ko les 300 hectares ñu ne ñun kat dañ fi daan bay d'accord da ngeen fi daan bay mais dangeen fi daan bay mais moomu leen suuf si ngeen daan bayee mais loolu su amee je pense que waxtaan war naa mën a régler problème yooyu parce que monsieur Ngom mm, champion la di entrepreneur sénégalais boo xamante ne bii samp na fi empire boo xamante ni bi ay junniy junniy nit ñoo ngi koy liggéeyal donc nit kooku su bëggee yaatal liggéey bi surtout ci jamono ji nga xam ne jamono jamonoy Covid 19 la nga xam ne jafe-jafe dafa daf ñuy gerte surtout sur le plan des produit alimentaire mu ñëw. bëgg a jël suuf soo xamante ne bi daf ko war a bay war ci war ci bay loo xamante ne bi ay tomate la ay carotte ay légumes yoo xamante ne bi ñun war nañ ko mën a jëfandikoo je pense que kooku il est beaucoup plus euh, important ñu jox ko suuf soosu mu bay ko que ñu jël rek par exemple benn nit rek ne la waa aca bayal un hectare bi te yaa ngi koy def rek ci benn période trois mois muy période nawet bi mais gens yooyu bu daan am dañ daan signé ubbi ay def ay clause mais par exemple bu ñu la joxee suuf si waa village bi war nga fi def lii ak lii ak lii. exactement loolu nag il appartient à monsieur Ngom am na loo xamante ne bii def na ko fa mu gën ko yaatal gën ko yokk ci dëkk yooyu parce que saa bu ñu la joxee suuf ne la bay fi ngay ngay liggéey ci agro business am na loo xam ne peut-être loolu ci sa yërmande ak loo warloog waa dëkk bi seen àq mooy bu fekkee amuñu ndox nga dimbali leen ñu am ndox. bu fekkee amuñu courant wala bu fekkente ne bii seeni soxla daal seeni i besoin nga taxaw ca. boole ci aussi emploi bi ngay créer foofu mooy waa dëkk ba jël li nga leen war a jël ca waa dëkk ba ñoom ñoo war a nekk prioritaire pour ñu liggéey ci ci mbir moomu. Euh, li nga xam ne moo am nag mooy ginnaaw bi ñu déggee coow li ak wax jeeg yooyu jàpp nañ ne euh, ñun ñëpp ay villageois lañ yow mi waa nga man mi villageois laa ci lañ jóge euh, sunu maam yi kenn ku ci nekk xam na ne jamono ju njëkk ja dañ daan bay rek di dundee. mais léegi nii da ngay gis ci village yi lu ci bari man mii samay village ak village yu keneen da am suuf su bare di si bay 2 hectares rek la ci des nga fàtte ko soo ko fàttee bu benn producteur ñëwee bëgg a bay sax nga ne ah sunu suuf la alors que suuf si Sénégal dañ ko war a joxe ñu bay ko parce que bay suuf si mooy créer richesse boobu suñu maam yi nekk ci village yi li ñuy bay li ñu koy bay pour dundee ko bokkul ak entrepreneur bi nga xam ne dafa ñëw pour bay pour yokk richesse bi ci réew mi ndool wala xiif bañ fee am parce que il faut ñoom ay produits Sénégal xam nga ne lu ci ëpp dañ koy jëggaane lu bari lu ñuy dundee ci Sénégal ba ci tamaate sax bari na ci loo xamante ne bi dañu koy jëggaane donc suñu amee ay champion yoo xamante ne bii dañoo ñëw taxaw pour liggéey yañ daan liggéey bitim réew wala liggéey yañ daan gis ñun bitim réew ci wàllum agro industrie à grande échelle nga xam ne dañ mën a produire lu bari ci loo xamante ne bi Sénégal dina ko mën a jariñoo dañ leen war a dooleel dañ leen war a dimbale Euh, su ma xoolee recherche IPAR bi ma ko defee di xool yan entreprise wala yan société ñoo nekk Sénégal di bay fii Ahmed damay gis ne mais il y a les Hollandais les Italiens les Français des Indiens ñëpp ñi ngi fii ñi nekk ci littoral bi ñi nekk ci suuf Kédougou ku ci nekk yaa ngi bay te kenn inquiété wu leen léegi nag damay samp laaj di jaaxle des fois su ma gisee koo xamante ne bi yaa ngi liggéey di doomu Sénégal liggéey pendant 40 ans ci réew mi yor ay junniy emploi ñu jox la trois 300 hectare rek am benn groupe bu jóg commencé bëgg laa diaboliser bëgg laa tuutil alors que au contraire que ñooñu lañ waroon a gën a dooleel parce que ñooñu ñooy créer richesse boo xamante ne. réew politique daf cee jàpp naa ne politique daf ci laxasu parce que ñi nga xam ne ñoo ci jóg doon agité wu. Hmm. Hmm, am na kenn ci ñoom koo xamante ne bi commune Ndiaganiao boobu la bokk donc moom. Euh, jàpp naa ne su fekkente ne bi da ngay aspirer ëllëg pour jiite réew mi booy euh, xeexal askan bi doo nekk juge et parti maanaam sa commune bi nga xam ne yow ëllëg war nga faa présenter wu pour nekk fa candidat nga bëgg a taxaw ne waaw sama commune boobu lay xeexal alors que li nga xamante ne bi moom la ñu war a xeex ci Sénégal mooy ñu fexe ba doomi Sénégal yi ñu dimbalee leen dooleel leen mais soo demee ba jël ay jeunes di leen instrumentaliser di leen saagaloo kilifa gu gu toll nii Babacar Ngom di ko attaqué frontalement politiser mbir mi mooy nga dem ci rajo yi dem ci télé yi dem ci journaux yi fu ne nga dem fa di wax ba pare te bokk ci parti politique kon yow yaa politiser mbir mi donc ku toll noonu nag nga instrumentaliser ay xale xale yoo xam ne ñenn ñi ñu ci ëpp ñu ngi bitim réew nekk ci réseau sociaux yi di bonal nit koo xamante ne bii mi ngi employé lu jege ñetti junni doomu aadama depuis ñeent fi at di liggéey ci réew mi loolu je pense que nit ku responsable waru ko def te je pense que mbir la moo xam ne war nañ ko arrêté fi ñu toll nii. waaw ah, léegi euh, arrêté boobu nag euh, population bi ñoom ñu saako sàkku président de la république nag daal di arbitré. waaw président de la république je pense que. li mu xalaat nga ne yow solution war na ci mën a am wala. si solution mën na am parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ. Hmm. te ñun ñëpp ay famille lañ. Ndingler ak Jilax benn lañ. Babacar Ngom doomu baykat la man mii doomu baykat laa. kon lépp lu mënti am rek nañu rétablir la vérité na service yi carrément confirmer carrément que ni lii kat ci périmètre communal bii la bokk dañ ko jox Babacar Ngom légalement léegi nag après suñu waree waxtaan ci jubo ak ci ànd moom mënta ñàkk ndax suuf yàgg na am wax yu mel nii am na ay kilifa yu mag ci réew mi muy kilifa yu diine ak yeneen kilifa yàgg nañ leen fi jox suuf mu am ay wax te terewul ba ñu démontrer liggéey bi nit ñi ne ah ay la ñii kat ndekete liñ taxoon ñu jox leen suuf si baax na kon je pense que njiitu réew mi war na ci arbitrer non seulement mu arbitrer mais bu jaree sax quarante familles yooyu ñu wut fu ñu leen jox ñu jox leen foo xamante ne bi war nañ fa mën a liggéey jàpp naa ne loolu sax du compliqué sax pour ñu défricher leen ko jox leen fu ñu liggéey te kii nga xam ne dafa teg un projet boo xamante ne bi day bay noor ak nawet di nekk projet boo xam ne mën na jël dans quelques mois presque 800 personnes. dans quelques années 1500 personnes muy njariñu Sénégal kooku ñu dooleel ko renforcer ko ngir ko bay bi muy bay foofu mu mën a génne production boo xamante ne bii du ma ne dina indi autosuffisance mais dina dimbale Sénégal tuuti ci jafe-jafe bii nga xam ne moom moo moom moo nar a ñëw. ci moo nar a ñëw suñ kaw. bu ñu desee ci wàllum suuf ba tey mais ñu ñëwaat ci réewu taax. Mm-hmm. gis nga problème yi am ci littoral bi fii muy Géejawaay fee muy Mermoz fii dakaar euh, affaire yi la. état la wala collectivité territoriale la wala promoteur yi la wala fan la. xam nga ñëpp la ñëpp la état am na ci responsabilité ñi ñuy jox suuf si ci littoral bi am nañ ci responsabilité promoteur yi. Hmm. parce que man fenn laa d' accord su fekkee nee nga da nga ñëw demander suuf pour suuf bi nga demander da nga koy def ah usage boo xamante ni bii dafay jariñ askan bi yi wala nga nga def nga def ci wàllu nga def ci wàllu nga bay ci wala nga def ci loo xamante ne bi dina jariñ askan bi d' accord naa ci. mais li ma d'accordul mooy nga ñëw ci littoral bi ci projet bi li nga demandé mooy ñu jox la suuf ñu jox la ko pare nga morcelé ko spéculer ko di ko jaay loolu moom vraiment loolu loolu lu ñaaw la ñi nga xam ne aussi ay dignitaire lañ ay cadre ay haut fonctionnaire ngay ministre ngay général wala ngay magistrat comme ni nga xamante ne bi noonu la amee ci littoral bi ñu dagg jox leen ko audite lañ ci war a def man dama jàpp ne dañ ko war a saytu su fekkente ni bi képp koo xam ne occupé nga foofu dara illégalement ñu nangu ko parce que littoralu Sénégal aussi dañ ko war a préserver parce que su fekkante ne bi ci wàllum environnement li to li leeru géej gi yépp war nañ fa def ay plantation ak ay construction yoo xamante ni bi vraiment dina may nit ñi afia may nit ñi jàmm nit ñi mën a respirer pour aussi bu ñu amee soxla dem ci géej gi ñu dem ci géej gi mais lii ma gis daal ñu def ko ci wàllum suuf ci Almadies 2 mhm. def ko ci littoral bi def ko Ngor def ko Yoff vraiment mbir la moo xamante ne bii jéggi na dayo te dañ koo war a seet nag mënoo tëb tëb nag accuser kenn wala nga wax ne ñenn la mais ñëpp a fautif li mu laaj daal mooy audit ci foncier bi ci côté littoral bi moom war nañ ko seet ñi nga xam ne ñëpp joxoon nañ leen fi depuis deux 2000 ci Ablaye Wade parce que problème bi du rek ci jamono Macky Sall jamono Ablaye wadd la ak jamono Macky Sall ñaari jamono yooyu buñ ko mënee saytu ñu seet ko képp koo xam ne occupé nga illégalement ci suuf wala la nga waxoon ci projet demande bi parce que ku ci nekk bi ngay demandé am nga loo wax. Mhm. bu fekkee respecté wu loolu mais ñu nangu ko. jox ko ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo koy. école bii ñu bàyyi classe d' examen yi ñu delluwaat d' accord nga. bof moom jàpp naa ne temps bi ñu war a jàng dafa tuuti jàpp naa ne xañ na état dafa bëgg a sauver année bi mais wax fa dëgg yàlla man dama bokk si ñi proposé woon que ni ñu bàyyi ba octobre. ñu ubbi école bi jàng ba décembre ñetti weer yooyu def examen yi janvier ñu commencé année bu bees man loolu laa gënoon jàpp mais lii nga xam ne mooy juillet bii la ñuy jàng août ñu def examen loolu par rapport ak trois mois 4 mois yi ñu toog jànguñu je pense que c'est très insuffisant te sama collègue sama xarit yi nga xam ne waxtaan naa ak ñoom dañ doon ay jàngalekat xamal nañ ma ne mënuñu terminer programme bi moom xaj na mën nañ def examen sur ay cours yu ñu jox élèves yi ñu def ci examen jàll mais programme bi nga xam ne moo leen war a former ba nga xam ne bu ñu génnee mat sëkk ci li nga xam ne moom lañ doon xaar ci ñoom pour mën a progresser loolu moom dina indi dina indi jafe-jafe dina indi gàllankoor. d'accord nga ci remaniement di instant bi ñu toll nii wala du du waxtoom. bof remaniement euh, waxtu la du waxtu parce que sa dépend ci kiy jiite moom mooy dem xaj na ba. xool non nga xam nga ba xam mbir mi dox na wala. war nañ def ay remplaçant wala jeu de chaise wala ñu changer équipe bi. man mi yaroo Europe li ma tàmm gis mooy bu ñu xasee nommé benn gouvernement ñeenti at yépp la ñuy dem parce que ministre yooyu ñuy seet dañ leen tànn ci seen xarañte ci seen compétence mais fii li may gis souvent Afrique réewu Afrique yi ni ñuy tànne ministre tànnoo yaa gañe sa dëkk wala yaa gañe sa nangam dañu seet ndax réellement yow li ñu la dénk mën nga ko wala déet est-ce que dina am évaluation yooyu. à mi parcours pour xam ndax ministre bi mi ngi def liggéeyam loolu aussi dafay jafe te nattuwaay bi amoon ak diggante bi amoon premier ministre amoon ci diggante ministre beeg ministre beeg ministre yeeg président bi dañ ko dindi ba tax na président bi d'accord gën naa jege bi nga xamante ne mun nañ ko def nattuwaay yi nga na président bi dana ko du ko tal parce que li mu yenu ci boppam. pour yow PM dafa a ñëwaat. je pense que premier ministre dañ ko war a rétablir parce que. moom mooy contrôler l' action du gouvernement parce que président bi sinon dossier yi day bari ci boppam nit rek la tamit lu mu doon doon président nit la mbir mi bu baree ci boppam mën na koo sonnal te lii ñu nekk nii bu tayee nga changé gouvernement bu subaa nga indi beneen bu subaa nga remaniement moom foo ko dégg rek ça veut dire que mbir yi doxut. mbir yi doxut parce que bu doxoon kenn du remanier. kenn du remanier waaw d' accord républicain yi gis nañ occidentaux yi ñoom dañ koy faral di respecté trop. barki démb Pologne élection France municipal yi door nañ ko. mais chez nous moom dafa mel ni farataaluñ ay élection de. waaw farataaluñ élection parce que. suñu wala mbas la. bon ñu si bari nag élection yi suñu réewi Afrique yi élection ci jamono bi mu lay arrangé nga koy organiser lu ci bari daanaka lu ci baree bari parce que mbas mi rek du moom mooy problème bi mais en fait euh, ñi nga xam ne ñooy organiser di kilifa yi war a organiser tamit dañuy natt seen bopp. ci jamono ji ñu koy organiser. maanaam bu ñu paree organiser buñ ñu paree. bu ñu ñu organiser. wala te saa bu ñu amee occasion buñ ñu ko organiser te parewuñu rek ça veut dire que ñàkk nañ pexe mais fi léegi ñi ngi am pexe moom saa bu ñu parewul du ñu organiser élection te élection yi dàq bi nag dafa bari. dàq ñaari yoon war a dàqaat ñetti yoon war lay daan ah Covid bi nous sommes pas assez. mooy élection fi ñu toll nii élection local yi ak Covid bi nii mu jëm nii bu continuer nii boo moytul danañ ko dàqaat ba 22. te buñ ko dàqaatee ba 22 day coïncider ak élection député yi. mais lu tax réewu tubaab yi gën ñoo critique les cas fop te ñoom ñu ngi organiser seen élection. waaw xam nga ñun Sénégal suñu élection ni ñu koy organiser moom ak jaxasoo beeg pëccëxoowu nit ñi ak seen façon bi ñuy defee campagne électorale parce que boo demee si tubaab yi seen campagne électorale yi c'est c'est bien organisé. li nga xamante ne bi aussi mooy militants yi ils sont informés au jour le jour sa boîte aux dañ lay indil dañ lay indil euh, programme ngay lire di jàng. alors que fii voté wuñu ci programme fii ci sentiment la ñuy voté Ahmed ama neex Ahmed mii daal bëgg na mairie Guédiawaye Ahmed neex na man naa ko jox mairie Guédiawaye mais duwul ne Ahmed am na projet ma waaw duwul ne Ahmed am na programme bul boo xam ne indi na ko teg ko parce que tamit ñi jàng ci Sénégal ba war a mën a lire euh, programme it bariwut boo koy xool euh, ñi nga xam ne 20 pour cent la ci population bi ba tax na ñu ci baree bari ndax diw neex na ma wala xaritu diw la rek ci la ñuy ci la ñuy voté mais duñu ñu voté carrément ci programme bi nga leen di jox yow bëgg naa def lii géejawaay bëgg naa def lii bëgg naa def lii loolu mooy li nga xamante ne bi moom moo fi jafe-jafe ci ci ci nattuwaay yi euh, ñuy ñaan yàlla nag ñu defal ñu élection wax dëgg yàlla pour que ñu mën a changer parce que maire yi ñu ngi fi prolongé nañ ko maire yi ñu ngi waroon jeexal 2019 man mi conseil municipal la ñun suñu mandat conseiller 2019 la waroon jeex kon suñu demaatee ñu prolongé ñu ba 2022 ñu ngi ñuy yokkal 3 ans yoo xamante ne bii ah, ñun vraiment jàpp naa ne du population bi légitime légalement moom moo ñu ko jox mais njiitu réew mi moo ñu ko jox parce que soit pandémie am na wala am na jafe-jafe bu am ci réew mi ba tax ñu yóbbu ko foofu ñun nekkatuñ di gérer commune communica commune bi légalement je pense que nattuwaay dafa war a am ñu nar a war a natt kan mooy kan ci dëkk bi lan nga def commune bu ci nekk aussi waa dëkkam ñu permettre leen ñu mën a sanctionner wala ñu approuver liggéeyu maire bi nga xamante ne bii moo fa nekk. d'accord kon président ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di kontaan bu baax ci invitation bi nga xamante ne bii moom nga ñu defaloon tey. mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon séq ak Assane Sylla di président MPS di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah.